ngir sàmmonteeg waxtu wi rek ndax li ñu cërale mi ngi xëccu di dem waaye it li ñu war a laaj sëñ bi bari sëñ bi nag faaw moo taxañ question yi ñu door a dugg ci tawat yi nga xam ne day aju ci li nga xam ne tawati yaram xeetu li nga xam ne mooy rab noob jigéen ju bëgg doom ak góor goo xamante ni xëy na doom da koo tële euh, xeet googu tey ndax ku ko am mën na ñëw. waaw bu ñëwee bu ñu xoolee lan mooy jafe-jafe mënees na ko teg ci yoon ndax yàlla mooy may am na ñoo xam dañ lay booleek ñoom yàlla dogal lañ doon wut mu sotti mm-hmm. waaye nag ci kaw nga jaar fi nga wara jaar hmm yalla nak mo boole ne amna na xamna xam may ay doomi goor kesse hmm am ño xamne ay doomi jigen kesse la len may mm-hmm. am ño xamne damay boole goor jigen may hmm am ño xam len may dara deug la léegi nag bu ne may dara nga ne may may yalla dalay may far force ah, mbir bi dara metti de lol leg <laughs> bu suba jotaguñ gu ñal far force suba dik mën mënta nek <laughs> lol moy mbir mi ki nga xam nag yàlla neen danaa ko may waaye dafa am ay tawat kooku tawat yooyu boo xamee lu mu doon boo ko tegee ci yoon ay traitement indoon mm-hmm. yi comme boobu nga jàkkaarool boobu di jigéen joom dafa am jafe-jafe wàllu doom mënees mm-hmm. nay raxas biiram ba gàllankoor yi ci nekk ci kàttanu suñu borom bu fa jógee bu jàllee mën na cee jëlee am doom mm-hmm. kon yooyu ci loolu lay dox nga xam ne tey jii ku ko jëfandikoo rek yàlla mën na cee def tawféex ba nga xam ne kii lii moo ko téewoon am doom nga daal di koy teg ci yoon kon loolu lu ma di bàyyi xel la kon lu mën a nekk la. d' accord euh, sëñ bi nag euh, waxtu wee ma njëtt mais wàllu bayre njaay bayre tur bayre mbooro bayre place hmm, ba ci bayre barabu liggéeyukaay ki yor entreprise bëgg entreprise bi di gagné ay marché ba ci it ki nga xam ne tey moom wàllu jaaro yeeg yi nga xam ne moom jaaro yi moom doy na waar xel googu mu bëgg nga tënkal ma ko rek ba xam. waaw ci question am sànq am na bu bàyyi woon lu aju ci wàllu nopp. Mm-hmm. mooy boole ñaar ñoo xam ne. dañoo mën a ànd. Mhm. mooy góor gi am na jafe-jafe ak soxnaam. te mhm. bëggatul tàqali ko soxnaam wala soxnaam am na jafe-jafe ak boroom këram. Mhm. te moom mënuñoo bàyyante. mu ne naa ñaan yàlla pour suñu yàlla jubalwaar suñu diggante pour ñu mën a àndaat. moo tax du nekku na lañ koy defal doon dañ koy liggéeyal nit koo xam ne da ngaa yor soxna wala yor sa borom kër wala nga am sa njaboot ngeen am ay jafe-jafe. ñaanal la yàlla ngeen jiboo ba jàmm am ci kër gi. bayri njaay dañ ciy liggéey yoo xam yu am doole lay doon mhm. des lay liggéeyal yoo xam ne foo ko jëf ci place moom xanaa nga bañ a jar bañ a bañ a bañ a tijji place waaye dañ lay rang ba ngoon jot moom moom ku jaayi jar moom da ngay jaayi jar ku jaayi jar adéway sëñ bi waaw ci kàttanu suñu borom kay boo koy def ci place bi da ngay jaay ba jaar kay da ngay jaay ouvrier yi yor place liggéey bu dee ouvrier yi da ngay dañ lay xëccal mbooloo xëccal mbooloo wax la yoon yoo xam ni tegal liggéey la loo xam ci kàttanu suñu borom client yi dañuy ñëw bu baax. borom entreprise yi nga xam ne tey ay entrepreneur lañ wala entreprise lañ yor bëgg di gagné yi nga xam ne. ay marché waaw loolu moom am na ci yenn xeetu liggéey yoo xam moom lañ leen liggéeyal ñoom dañuy nekk ci barab bëgg ku leen teg ci yoon ba tax ñu gën fa am waaye ba tax seen liggéey di gën di yokku fu waaye tuddee dara rek seen xel dem ci mais koo xam te ne tey ji fu mu dugg rek ñu ne diwa ngi ne. Mhm. lu ko waral kooku dañ koy liggéeyal loo xam ne fu mu toll rek nit ñi dañ koy bàyyi Euh, te eh, mu ngi noonu sëñ bi na xam naa dinaa laaj beneen question boo xam ne tey ki nga xam ne tey autorité la DG ministre gendarme commandant douanier lu mu mën a doon saa su xëyee doomu aadama yu bari faaw ñu ñëw ci moom barab ba mu nekk fa muy liggéeyee ndax dañ fay am soxla soo xam ni moo ko war a lijjanti te kooku léeg turam dañ koy yóbbu ci ay sëriñ ak fu nekk di leen fa dugal pour mën leen a jàpp ba la seen aajo yi ñuy am foofu muy mën di jàpp kaaraange goo xam ni xeet googu danañ ko mën a yittewoo ba amaana fu ñu yóbbu seen tur ngir nopp wala ngir liggéey wala sëf duñ leen mën a jàpp tey amaana ay doomu jàmb lañ ñuy def seen liggéey rek te léeg-léeg ñoom ñu loru ci. waaw loolu moom am nañ ci ay tegtal. léegi nit ki mën nga koo defal kaaraange goo xam ne ku ko bëgg def dara da koy yëg sax moom. benn nañ ko na dara jékki-jékki ñu jeneen ko ko wala ilaa mu tëdd jënt ña xam ne ñu ngi koy bëgg a liggéey ñooñu am na kaaraange goo leen liggéeyal joo xam ni fi nga koy liggéey def ko fa. Mm-hmm. Eh, ci kàttanu suñu borom ku leen bëgg a liggéey moom xanaa nga jékki-jékki kay moom bàyyi waaye boo bàyyiwul moom lépp mën na ko par sa kaw. waaw kaaraange mi ngi fi mu ngi fi bu baax ci kàttanu suñu borom ndax léeg-léeg nga gis commandant bu war a entendre benn dossier wala benn douane yor ay kii nga gis ñooñu dañuy dem ci seen joxe fa seen i tur joxe fa seen tur benn magistrat bu war a atte dossier turam ñu yóbbu ko fenn ah, gars yi kay seen tur <laughs> léegi ñooñu da nga leen di liggéeyal kaaraange xam ne fi nga leen koy liggéeyalee yow fay nekk ak yàlla liggéey ko ba mu àgg nga def ko li koy def jox ko ku leen bëgg a laal yàqu. adil waay waaw ku leen bëgg a laal yàqu ndax parce que ñoom ñoo wër wër kaaraange ndax ñoom seen turi fële lay dem. mais nag gis bu wér moo leen yombul. jafewut de ndax leen wax ñun ñun lépp ñu ngi ko teg ci ci suñu borom subhaanahu wa taala wa ni'mal euh, euh, comme ko waxee bayre ubbeeku ku la gis bëgg la ku la gis la dem am nit ñi na ci yoo xam dañ koy liggéey sax bu dul ci ay jaaram. yoo xam ne base boo ni tëll ñu naan saa ñëw na mm-hmm. mais am na ci dañ koy liggéey ci yu mel noonu mm-hmm. kon am na ubbeeku am na kaaraange am na cat mm-hmm. am yoo xam ne moom mënoo ko takk moom te suñu borom defal la taw fi xam sëñ bi ñoo xam ne dañu jàpp ndigg luy métti ndigg luy fas yi nga yor da cee doy waar lool lool lool sëñ Abdou fas yi waaw fas yooyu yu ñuy liggéeyal suñu bopp la yooyu moom ñun gëstul suñu bopp la ci kàttan suñu borom di ko defaral suñu bopp fasu ndigg ak fasu bopp am na ñu ni liggéey ci wàllu mocc bopp yoo xam ne bari na ñoo xam ne ñu solo leen mënatu ñoo sax ju bopp moom bu dee bopp képp ku mu yitteel bu ñëwee ci kàttanu suñu borom bu ñu ko jëfandikoo yàlla dina dogal balaa dem mu taqali ko moom hmm. mocc bopp wala fas ndigg même fas yi am na ci ñuy joxe ci wàllu nopp waaye comme ñu la wax ci borom kër ak soxna lay doon doo ko liggéeyal nit ki mu moom te woowale naa alhamdulilah ayca mbokk mi ngi noonu woo leen ko ci 78 443 75 27 78 443. 75 27 adresse bi fenn rek muy waaye boo ñëwee ba PA yi taxawal ci Brioche Dorée bi rek woo ko ci numéro téléphone boobu da nga mën a gisante ak moom wala it foo mën a nekk ci àdduna wërngal këpp boo jokkoo ak moom ci numéro bi rek da mën a jokkoo ak sëriñ bi lay sa aajo lay sa yitte te amaana sax déggu mu wax ko ci biir jataay bi soo ci waxtaanee ak moom danga mën a am li nga xam ne mooy tawféex ak taysiir gannaaw ba it lépp day lalu ci afiya ah, jëy don don xamante ni résultat rek moko koy may bi isnillahi taala kon nak ala kulli hal de ngeen ni ko sëñ bi waxe sëñ bi ne dama bëgg ñu taxañ taxañel ma emourid moy lan wa emourid de febar la bo sonal ñu bare bari dekk bi dañ koy fajj ñi naan ma ma ma gëna bari tawat ji gëna bari emourid hmm. mom wax dëgg yàlla lool amna luñu suñu borom may jëflaan nañu ci ñu bare bari mo xam mu wala bi ci biti sonal nit ñi de loolu moom na naqaru dafa am nit ñoo xam tamit ñoo teg seen bopp hémorroïde ndax tamit li ñuy hémorroïde di tere da ko war a bàyyi pour mën a faju lépp lu ne day joxe nàngam soo ko bàyyee wér te hémorroïde boobu noonu su la jàppee ba noppi ñun la bàyyi lii nga jëfandikoo nga ne ko bàyyi est-ce que da nga wér. bëri dañoo bàyyiwut leen jox feebar ba noppi di faju bu fukk di gas fukk di suul moom est-ce que pax dana. kon rek a yam de. léegi jafe-jafe yi nag bokk nañ ci ko indil nit ñi moom dañ koy def traitement ci kàttanu suñu borom. Mm-hmm. moo xam bi ci biir wala bi ci biti. Mm-hmm. Eh, fexe ba taqali la ak moom. 443 75 27 443 75 27 muy numéro sëñ Abdou Khoudoss Sène mais sëñ bi nag faiblesse sexuelle mooy lan ak euh, yan mandarga la am ci nit ki pour mu mën a xam ne man néew kàttan nag may dab wala dab na ma wa illaa tële sax maar day taal dal na. waaw feebar boobu de moom daa mel ni moom it. ci feebar yi gën a neex a faj te gën a bari la man moom a gën a jaaxal. man na sëñ bi boo nee neex a faj damay jaaxle ndax kër yaa ngi tas sëy yaa ngi tas góor ñi dañuy wàcc di tong tongaan ci garam place yi duñ ñemee dem kër ga soxna yu bari di ñaan baat te du duñu nangoo wax sax lu tax ñuy ñaan baat. Mm-hmm. Euh, nga ne ma lu yomb faj la sëñ bi xanaa gars yi naa man danaa leen sëñ bi borom baa ngi sëñ bi faiblesse sexuelle. ñu doon ni limon ak lem original kooku noonu la baaxee ci wàllu kàttan da koy yokk. ndox koko mhm. nga jëfandikoo ko di ko naan bu naturel bokk nag nag bi gaa yi jël suukar ko ba noppi mu niroo ko todu koko mhm. nga di ko jëfandikoo di ko naan lu bari day yokk mhm. day yokk niw kàttan da dem ba da yëg force incha allah mbokk yi mu ngi noonu muy wàllu néew kattan ci biir néegu say siti hémorroïde ak mboolem tomb yi nga xam ne waxtaane nañ ko ci ndorteel jataay bi ba fii ñu fas yéene laxas yëkkati jataay bi ki ñu ci doon àndal nag muy sëriñ Abdou Khoudoss Sène borom ijaaba mbokk yi nee naa leen ki ko mën ak ki koy jëm bokkuñu amaana kàddu yi ngeen daan dégg waaye it jëmm ji li ngeen ñu koy gis eh, doon na néew lool tey nag ñu toogoon doon laaj muy indi ay tontu ak i leeral yooyu junju la rek waaye développement bi dëgg dëgg dëgg mi ngi ci ku ko woo ci 78 443 eh, 75 27 sëñ bi lan ngay tàggoo mbokk yi ñu seetaan. waaw jërëjëf sëñ Moussa ala kulli xaalin ama li nga xam ne moom la ñuy tàggatoo di leen sant bu baax ci teewaay bi ngeen teew ci jotaay bi eh, di sant bu baax sa taxawaay ndax yow moom eh, démb la tey doog ñëw. Mm-hmm. ndax parce que lu baree bari am na fu suñu borom boole. Mm-hmm. te lu ci bari boobu tey tam yaa ngi ciy góorgóorlu ñu ngi ciy def suñu laay kàttan kon yéen dem dañ leen sant bu baax di leen ñaanal jàmm. di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku téléspectateurs yi ñu doon topp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kóolute gi ak safo gi amoon di ànd ak ñun ñu doon seq jataay ak ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Khoudoss Sène borom ijaaba nee na borom ijaaba rek moo wóor ndax suñ borom innama amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kon nag mbiram daa nekk ci diggante kun fayakun képp koo xam ne nii euh, wuyu na la ci ijaaba googu nag lépp loo ko laaj rek baynal kaafi woon noonu la daanaka bu naan pirip muy dal. kon nag gaaw leen ngeen ko moom ci kàttanu suñu borom ndéem wër ngeen ba dajal na yéen ñoo ñii la gën a soxla ngir mu mën a dimbalante ak yéen ci la ko suñu borom jagleel ci xam-xam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ab dig ñun ak moom ci yeneen i tomb di jaajëfal sama cadre bi ma àndaloon Hadji Momar Diagne kon mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax jërë ngeen jëf ba beneen